mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey jeudi 25 mars 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi ma ci ànd ak Amina Ndiaye la soise maa ngi lay siyaare. ziar naa la euh, Omar di ziar képp ku ñu suivre solutv.com di leen dalaat ak jàmm seen yu revue de presse. ñuy nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ni lamin daan leen nuyu waa Vibe FM waa mbir kilaan FM ñi nga xamante ne ñu ngi ci Gàmbi ak Kaolack. ak ñëpp ñi nga xamante ne ni ay auditeurs lañu ci rajo yooyu rek ñu ngi leen di nuyu ñu ubbee ak journal bu suñu làmb mu daal di fësal Lac de numéro 2 mi nga xamante ne ni moom moo war a jàkkaarloo ak Eumeu Sène le 4 avril Eumeu seen borom dof du weer day tane Lac de numéro 2 war a jël ci revanche am war a gën a mën a confirmer ci kanam Eumeu Sène mu nekk combat boo xamante ne ni lépp loo xamante ne ni faveur dañ koo jël daal di koy teg ci côté Lac de Guiers numéro parce que moom moo war a ñëw wane boppam. Omar le 8 avril 2012 lañ ta sante woon euh, ñoom ñaar euh, jamono ji nag wuure ba dem na këng pour li nga xamante ni moom moo di revanche am nee nañu nag c'est le moment ou jamais euh, pour que kii nii di Lac de Guiers 2 daal di prouver ndax Tay Shinga bi déjà dafa blessé donc occasion la pour moom pour mu profiter waaye tamit mu génn ci yeneen feem gën a wane boppam ci li nga xamante ni moom moo di digganteem ak Tay Shinga bi ndax ñu ko ciy xaaree dafa bari ñenn ñi dañ ñu déedéet Lac de mënu ko mënul yegg ca cappaandaw daa daw bañ koy xaare ñeneen ñi ne ankay euh, Lac de Guiers am na clé yoo xamante ni bis bu ko génnee rek euh, tay ci nga bi dina jommi. Lac de Guiers de booy Boy la mujjee bëril daal di koy daan ci arène nationale par après recours. Eumeu Sène itamit Modou Lo la mujjee bëril perte li nga xamante ne moom mooy couronne royale bi ca. Euh, stade Léopold Sédar Senghor mu nekk combat boo xamante ne nii Amina Lac de Guiers numéro 2 ay naataangoom ci làmb ñëpp nekk nañu roi des arènes muy Balla Gaye numéro 2 muy Modou muy Eumeu Sène moom moo ci des te pour mu nekk ko am na taxawaay bu mu war a taxawee ci làmb maanaam li ñu koy xaarandee mooy mu ñëw wane jom fulla ak fayda comme ni mu ko doon wane mais muy ni beneen facette bu bees beneen facette bu bees comme ni ma ko waxee Omar ñu ci ni mën a yow def nañ ci micro trottoir laaj ñi xamante ne ñoom ñoo di amateurs yi amateurs yi ñenn jox nañ ko bopp gëm nañ ñi Lac de Guiers 2 bu bàyyee tuuti yenn naxasa xandang rek euh, war naa mën a daan ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène am nañ ci ñoo xamante ni nag joxe nañ seen kàddu ba pare ci combat bi euh, ku ci mel ni suñu papa Ndiokhobaye moom joxe na bi ba pare euh, naka lay demee at ku ci nekk daal li nga xamante ni moom moo di sa avantage ak li nga xamante ni moom moo di sa faiblesse en tout cas dëgg la Tay Shinga bi moom la war a tasanteer te adversaire am la waaye Lac de Guiers dafa mel ni jamono ji nag moom moo ëpp sas. moom moo ëpp sas ndaxte Amina Ndiaye parcours bi mu def ak yàgg gi mu yàgg ci làmb yi benn defet rek la am te ku sañoon am li mu am ci làmb ndaanaan la champion la waaye mi ngi bëre koo xamante ne bu dàqulee bëre ci làmb ji kenn dàqu ko cee bëre muy Eumeu Sène yàgg naa bëri ci làmb te teel naa dugg ci làmb wane boppam bu baax a baax ba tey ci journal bu suñu làmb mu daal di dem ba diwaanu États-Unis d'Amérique fekk fa Yékini Junior turandoo Yaxya Baasul muy wax rek ay bëgg-bëggam ci làmb ndax nee na ki mu bëgg a bëreel combat bu logique mooy digganteem ak Gris Bordeaux le deuxième wala le troisième tigre de Fass loolu la wax nee na ki nga xamante ni moom moo di Gris Bordeaux moom la bëgg a janonteel ki Yékini Junior nag moom euh, demu ci de midi à 14h moom la wax euh, wax na tamit ci ko am contre Sa Thiès nee na bu fekkante ni dafa intéressé woon Gaston Mbengue euh, kon gëm naa ni kenn waxatu ko waaye daal jamono ji ki nga xamante ni moom la teg bët moom moo di Gris Bordeaux depuis États-Unis nag léegi te ay tragam di ko sànni. am na solo torop bokk na ci xale yi nga xamante ne nii Amina Ndiaye xanaa ñu bañ a bëre rek mais duñu ñàkk adversaire parce que Yékini Junior mook Sa Thiès combat la woon mook Moussa Ndoye combat la woon mook ama neex combat buy jaadu combat bu neex bu fekkee ni dina bëri ak Malick Niang combat bu neex ndaxte ñoom ñëpp ay naataangoo lañu mook ki nga xamante ne moom mooy Garga Mbossé itamit bu fekkee amul problème mu dëkkandoo combat waaye leneen li nga xamante ne ni gis nañu ko ginnaaw bu ñuy nee dañuy yokk âge de retraite ki nga xamante ne nii combat ak baay ma Mandione la génnoon ca làmb ji génn ci ak ndam muy Balla Gaye numéro 2 la mbaroo ko ñu mu doon wax nag ne bu doon dee ñëwaat Gris Bordeaux la bëgg wala amaneex amaneex nag def na réplique ni bu buñ ko ko joxee mu daan. Omar trois ans ginnaaw ba Baboy bàyyee làmb ak léegi booba ak léegi nag gis ñu ko woon benn yoon ci arène bi donte mu ngi doon def ay sorties yoo xamante ni ci business bu boppam la nekkoon euh, cette fois yi nag nee na dafa pare ngir dellusiwaat ci li nga xamante ni moom moo di arène bi euh, pare pour bëriwaat pare pour ngeen bu waat pare pour bégalaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay euh, amateur am ba tax na nag amaneex moom pare na pour jël ki nga xamante ni moom moo di Baboy duma ko daan ko donc waaye nag minimiser wu ko benn yoon ndax jàpp ne ni jàmbaar la euh, nekk na koo xamante pour prouvé na ci arène bi bëri na fi ak ay naanaan yu baree baree bari wane fi boppam dafa retraité woon rek mais moom jamono ji na moom pare na pour jëfante ak moom. am na solo torop Amina Ndiaye waaye mercredi de l'arène la journal bu suñu làmb wax ni CNG. teg na mise u 3 millions le 7 avril. mise u 3 millions de francs CFA la teg pour 3 euh, euh, euh, avril bii nii di ñëw incha allah ginnaaw bu ñu duggee ci Eumeu Sène Lac de Guiers 2 ba teg ci ñetti fan. mercredi boobee 3 millions de francs fa pour ñi nga xamante ne daal ñooy mbër yi dafa mel ni 3 millions dara la de Omar. 3 millions na nekkee dara sax ëpp na Amina Ndiaye waaye gala de lutte simple samedi 10 avril incha allahu rabbi. mise bi di un million foofee ca Mbour. comme ni nga ko waxee daal dinañ koy rectifier te euh, euh, rectifier waat dañ ne woon euh, mise bi un million de francs CFA la ci am ñu ni mise bi trois millions de francs CFA la ci mbuur en tout cas daal journalu suñu làmb moom nee na ki nga xamante ni moom moo di docteur syndicat un million de francs CFA la teg muy galaalu lutte simple bi war a am ci samedi bi 10 avril incha allah. mu nekk gala boo xamante ne nii gala la bu am solo parce que nag Amina Ndiaye ñoom ñëpp ay nit lañu yoo xamante ne dañuy œuvrer ci làmb bu baax a baax kon bu làmb ubbiwaatee ku ci nekk da nga ciy dugg ak doole da nga ciy dugg ak xadar waaye Malick Gningue tamit journal bi fësal na ko mu yëkkati ay kàddoom rek di ko jëmale ci CNG de lutte bi parce que nag il est temps. que ñoom ñëpp ku ci nekk gën a gisaat sa bopp ci làmb. ndax gouverneur yi nga xamante ni ñoo nekk ci région yi ak préfet yi dañ leen a interdire pour ñu def bépp xeetu euh, organisation lu ci mel ni genre lépp lu mu mënti doon daal dañ leen koo tere looloo waral nag Malick ñi nga di fustiger loolu teg ci tamit di interpeller waa CNG euh, pour ñu daal di leen di gersu président Arel Arels euh, xaw ma nu ñu koy waxee noonu moom tamit nag daal dina joindre rédaction moom moo joindre moom ci jëmi boppam moo joindre rédaction bu suñu làmb yëkkati kàddu yooyu daal di ko ciy dénoncé ndax jàpp na ni daal teguñu ko fenn. jàpp ni teguñu ko fenn jàpp ni nooteel la wala jàpp ni dañoo jël seeni ay yëf rek pour doxalee ko ni mu leen neexee waaye ci tout su journal suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun nag ci Luc Nicolas le promoteur de grand événements mu war a ñëw ci kombaam bi war a dox ci Ama Baldé ak Modou Lo le combat royal face bu njëkk bi war amee fii ci Sen TV. moom nag ñëwaat na ci di ci yëkkati ay kàddoom. Luc Nicolaï le promoteur des grands événements comme ni nga ko waxee rek euh, dañoo ñëwaat ci combat bi nga xamante ni moom moo war a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé combat royal boobee nee nañu nag képp ku yaakaaroon ni Luc Nicolaï day abandonné mu dellu ginnaaw. wala sax euh, mu xaw a teggi tànk euh, mën nga euh, mën nga yaakaar ni mën nga jàpp ni sa yaakaar tas na ndax Luc Nicolaï fasul yéene benn yoon dellu ginnaaw ci li nga xamante ni moom moo di combat royal bi d'ailleurs sax face to face bi jox nañ leen date bi. le avril la incha allahu rabbi ginnaaw ba Modou Xarañ Lo roi des arènes defoon point de presse am ñu doon xaar ba su amaa Baldé Covid deuxième vague bi waat dal suñu kaw. Ama Baldé ak moo Lo dinañu am sansu jàkkaarloo ak ñoom le 6 avril ci locaux yu Sen TV ñu waxtaan ak ñun. comme ni nga ko waxee rek bés boobee lay xewee euh, mu nekk bés bi nga xamante ne nag moom mooy doon première apparition wu euh, Ama Baldé ndax boobu ba tey réeroon na ba mu doon waaj a préparé li nga xamante ni moom moo di conférence de presse euh, ci la ñu interdit waat manifestation yi ak yeneen yu ni mel donc Ama Baldé ñu ko namoon jàppale na ba sub 6 avril boobee incha allah di ngeen ko gis mu jàkkaarloo ak Modou Xarañ Lo wax dem wax ñëw. wax dem wax ñëw làmb la joo xamante ne ni naa Ndiaye mën naa delloo delloowaat Sénégal ay valeur am mën naa delloowaat Sénégal sourire am parce que kanam goo ci gis bu fasuwul ci biir ca kanam fasu na parce que nag ñun ñëpp dañoo stressé te ay combat yi nekk na ay combat yu ñu mën a delloo delloowaat suñu suuful bu baax a baax journal bu record ñëw ak ñun ci Eumeu seen tay si nga dof du wér mu nekk xale boo xamante ne ni bi mu duggee ci làmb ak léegi yàgg na parce que boo waxee mu ne damaa teel a bëre ba may bëre sax awma 18 moo tax ñu bëri jàpp ni mag laa moo tax ñu daal di ne Eumeu Sène mooy champion des revanches heure bu jël ses revanche da ciy am ndam ñu seddu ko ci ay combat yu bëree bëri bëri moo tax journal bi ñëwaat ci. Omar 23 ans mu daal di ci vrai 20 combats. at bu nekk presque am na ci combat ak lu topp wala leneen ak leneen 15 euh, lutteurs la daal di jonganteel 5 revanche daal di na ko ciy am gis nañ ni nag moom mooy bureau moom mooy bureau des VIP comme ni ko euh, suñu làmb amee habitude euh, di ko titre ku ci mel ni Gris Bordeaux Balla Lac B52 ñoom ñoom xam nañu bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène ndax daal di nañ koy tuddee dresseur des VIP waaye yamul foofu ñëwaat nañu ci li nga xamante ni moom moo di carrière am ñëwaat nañu ci li moom moo di palmarès am nee nañu 10 victoire la am 7 défaite 2 nul benn sans verdict. nekk da koo xamante ne amee Amina Ndiaye kombaam ak Balla Gaye numéro 2 bu njëkk bi bi mu koy caaxbal di ko wéeru. la ko sax ñu bëri gën a ràññee mais laataa loolu mi ko doon wane boppam bu baax a baax amoon na yu bari yu xewoon ci ginnaawam demoon na ba découragé ci làmb le deuxième tigre de Fass dajeeg moom Moustapha Guèye ne ko danga nga am cër ci làmb ñëwaatal te bi mu ñëwaatee rëccuwu ko digganteem ak Bombardier moo bi muy nekk roi des arènes bi mu koy daan ci stade Léopold Sédar Senghor njëkkoon naa bëri ak Gris Bordeaux Gris Bordeaux daan ko keroog bi muy jël si revanche seen combat boobu moo nekkoon meilleur combat de l'année mu daal di ciy daan Gris Bordeaux xëy Sénégal gi yëpp taf seen r ndax coono ak dang-dang gi nga xamante ne da amoon na ko ci biir géew bi mu jàpp la fils de Double Less Balla Gaye numéro 2 daan ko aller ak ñaari yoon. mu nekk koo xamante ne champion la bëri ak Lac de Guiers numéro 2 ñaari yoon daan ko benn ñu nul benn ki ko daan ñaari yoon mooy le roi des arènes actuel Modou Xarañ Lo mu nekk koo xamante ne ni tamit champion la leneen li nga xamante ne ni tamit mooy actu de ren journal bu record da koy def à chaque fois di ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy combat yi di ñëwaat ci li nga xamante ni itam moom mooy taxawaayu mbëri parce que Amina Adrien Senghor teg nañu fa 1 million Jax itamit teg na 3 millions. mu nekk ay làmb yu neex Fallou Ndiaye itamit teg na 4 millions. comme ni nga ko waxee Adrien Senghor 1 million de francs CFA dañ fa teg moom la ñuy miser si euh, tamit daal di nay teg euh, daal di nay rectifier nee nañu daal di teg 3 millions de francs CFA ba tey ci lutte simple bi Fallou Ndiaye euh, daal di nay casqué lu toll ci 4 millions de francs CFA ba pare nag bëgg cee rendre hommage ki nga xamante ni moom suñu papa Doudou daan dégg ko combat 8 avril daal di nay quitté ca diwaanu du baay le premier la fay quitté incha allah bu fa quitté le premier dina fa delluwaat le 10 avril ginnaaw bu amalee combat ba pare digganteem ak di Omar mi ngi noonu. mi ngi noonu Amina Ndiaye waaye avis d'expert ñu dem jëli ji benn expert mu waxtaan ak ñoom ci combat Lac de Guiers numéro 2 seen Sène expert bi nag du kenn ku dul du Badji. ancien lutteur nee na Eumeu Sène dina jël ay coups yu bëri parce que Amina parce que bi lan la. waaw nee na Eumeu Sène reçoit beaucoup de coups euh, parce que kii nii euh, di Lac de ak lépp lu ñu ko mënti wax xam ay dooram dafay dal ay dooram dafay nangoo dal nekk na analyse boo xamante ni euh, def na ko waaye teewu ni nag jàpp na ni combat bi du yomb ndax Eumeu Sène ci jëmi boppam dafa tàmm xeexu mbedd te xeexu mbedd moom moo gën a mën a gaañ nit moom moo gën a mën a affaiblir sa adversaire xeexu daal Omar mooy ka nga ci mbedd mel ni jàngal na la xeex ba nga dugg ci arène bi loolu sauvé ba tey jii looloo dal Eumeu Sène Amina Ndiaye Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 nañu ñaari yoon te seen combat bu mujj li musul dal Lac de Guiers numéro dal Lac ci Eumeu Sène muy jël coup coup boo xamante ne nii du kuwu kurpañ waaye avant bara ñu ko dóor mu mel ni ku kaawate kon ñoom ñaar miinante nañu waaye nag wax sa xalaat moom mooy waral marchandise di jar yaakaar naa ni leeral yi loolu rek la woon. leeral yi loolu la woon Omar wax ji moom sax jaratul mooy gudd ndax la 4 avril incha allah soreetul bi ñu yàlla mayee gudd fan ak wér ak képp ku ñuy euh, déglu actuellement di leen jaajëfal nag jox leen dig daje. ba suba jàmm incha allahu rabbi di ñaanal ñëpp jàmm.